conférence de presse bi nag ñun ñoo ko woote woon la société civile collectif COLIDEP collectif pour la libération des détenus politiques li tax ñu woote conférence de presse bi mooy dañoo gis ni dafa am suñu ay mbokk yoo xam dañ leen a jàpp depuis yàgg na ñi def nañ fa ay quatre ans ay quatre mois excusez mois ñu def fa ay trois mois ñu jàpp leen moo taxoon collectif bi jóg muy COLIDEP collectif pour la libération des détenus politiques boobu ba tey ñu nekk yi xeex mu am suñu yeneen camarades yoo xam ne aussi dañu leen a jàppaat barki démboo njaay li tax ñu jàpp leen nag dafa nekk ñun waa COLIDEP dañuy xeex pour ñu génnee ñëpp ñi nga xam ne ay détenus politique lañ te Pape Alé bokk si yaakaar naa ne liste bi yéen ñëpp gis ngeen ko mu nekk liste boo xam ne am na lu mat vingt 26 personnes yoo xam ne ay détenus politique lañ dañ leen a jàpp ndax politique sans justification ñu am lu mat ñetti camarades yoo xam ne dañoo demoon Petit pale bi nga xam ne ñenn ci société civile bi doon nañ daje ak premier ministre Amadou Ba ñu am ay camarades yoo xam dañ fa demoon taxaw di wax ni dañoo war a libérer Pape Alé Niang parce que état de santé mayetu ko mu nekk ci biir kaso bi ci kaw loolu ñun ñëpp ñoo gisandoo ñu arrêté leen ci arrestation yoo xam ni jaarul yoon brutaliser leen torturer leen foofu ñun ñëpp ñoo gis vidéo yi ci réseaux sociaux yi mu doon mbir mu ñaaw mbir moo xam ni day wane chaque jour li ñuy wax ni nous sommes dans un te Macky Sall fi mu jëmee réew mi baaxul suñu camarade yooyu nag boobu ba tey ñu ngi leen téye ci kaso bi suba jeudi la ñu war a taxaw donc ñuy woo sénégalais yëpp ne leen suba dañoo bëgg peuple sénégalais bi ñëpp ñu ñëw taxaw ñu soutenir suñu camarade yooyu mu nekk Ousmane Sarr bu nitu dëgg valeur Bayna Gueye bu nitu dëgg valeur ak Mohamed Sourane Diallo bu mu bu collectif ñoo lànk ñoom ñëpp ñu jàpp leen depuis boobu ñu ngi ci biir kaso bi ci loo xam ne teguwul ci dëgg teguwul ci yoon ci jaay doole la woo sénégalais yëpp ni leen suba dañoo bëgg ñu def une grande mobilisation di woo toutes les jeudi incha allah rabi jeudi ñoom ñëpp nañ ñëw ñu taxawu suñu mbokk yooyu parce que Ousmane kenn dootu ko présenté benn Sénégal ñun ñëpp xam nañ ko donc ñu ngi woo société civile bi di woo ñëpp ñi nga xam ne ay leader d'opinion lañ pour ñu ñëw taxawu suñu frères yooyu noonu ñu génnee leen ci kaso bi ginnaaw loolu nag tey dégg nañ ci tey ci médias yi comme ñun ñëpp ñu ngi ko jotee que libéré nañ suñu ñaari frère muy Abdou Karim Gueye ak professeur Cheikh Oumar Diagne mu nekk loo xam ni peut-être mën nañ ni benn lenn la luñ gañe la mais aussi dañuy wax sénégalais ni leen combat bi yemul foofu le combat est loin d'être gagné parce que bu ngeen xoolee 26 détenus politiques lañ donc bu ñu si libéré ñaar day ça montre des na vingt 24 détenus te ñooñu ñëpp dara bàyyiwu leen ci kaso bi lu dul jaay dooleewu président Macky Sall ak dictature bi nga xam ne moom la teg pour di waajal loo xam ne ñun ñëpp xam nañ ko. pour ñu éviter loolu yëpp nag maa ngi wax sénégalais ñu taxaw xeex pour que ñeneen ñi des ci kaso bi te ñun ñëpp ñu xam ni li leen fa téye du dëgg du yoon jaay doole la ak bunduxataal ay nit bëgg leen a teg lu dul yoon sénégalais yëpp nañ jug ñëw ñu taxaw pour exiger leur libération mais du ma wax ba daaneel am na message boo xam ne chaque jour dama koy lancé mu jëm si benn parti politique wala mu jëm si ay militants peut-être am na ñoo xam ne duñ ko dañ koy dañ duñ ko comprendre bu baax mooy dama naan waa Pastef tey ñun liste bi nga xam ne moom la def di xeex collectif pour la libération des détenus politiques collectif bi ñu ñuy xeexal liste bi 26 personnes lañ. six personnes yi kese ñoo ci bokkul Pastef tous les dix neuf détenus dañoo bokk ci parti politique am engagement di militer ñëpp xam leen donc ñooñu bu ñuy xeex ba ñu jàpp leen tëj leen ci kaso bi ñun ñi ñu ngi bàyyi lu ñu mën di def lu ñu mën mais ñoom kenn warul leen woon jiitu ci combat bi. kenn waru leen woon jiitu ci combat bi te mën naan seen engagement des na ci combat boobu noonu pour ñu libérer seen mbokk yooyu fu ñu nekk ñu ngi nekk di def ay calcul politique ay calcul ay poste ay yu kenn xamul loolu du farata bi nañu génn ñu ñëw ñu xeex ak ñi nga xam ne ñoom la ñu war a xeexal ñu génnee seen ay mborom yi parce que tey li fa bàyyi camarade yooyu moom moo jàppalu Fadilou Keïta te mooy jàppalu keneen ak keneen bu ñu toogee li war a am mooy ñu war a dem xeex pour génnee ñooñu ku nekk toog di calculer di xalaat ëllëg keneen moo ciy topp te niil ne à kenn ku nekk mën nañ laa fekk jàpp la dëkk bi li fi am injustice la professeur Cheikh Omar Diagne tey bi ñu leen di jàpp injustement lañ leen jàpp bi ñu leen di bàyyi injustement la jàpp ni tëj ko 4 mois amul projet amul dara jékki-jékki rek bàyyi ko yëgaloo ko sax ay avocat dañuy jékki-jékki rek presse moom moo ñuy yëgal ni bàyyi nañ ko mu nekk loo xam ne lu ñaaw la te tegul ci yoon donc sénégalais il faut que ñun ñëpp ñu conscient ci situation bi nga xam ne moom moo xew ñu xam ne mbejum kanam borom moo koy fajal ba om ngi joxe kàddu gi suñu frère Fallou bu ñoo lànk merci